jërëjëf kontaan naa trop mais da ngay waaj dem seeti papam inshallah allah boo fa demee dina la may soxna. ñii ñaan si ana ñu euh, ñoom. ñoom ñu ngi si salle bi. ñu di la xaar. d'accord. biige mii ndayam liggéey na. ndayam lu mu liggéey. patron biige moo ko bëgg a takk. <laughs> ki day jógee ci ndóol. sëy bii du am. départu gaynde arrivé muus jeegu ndaare dellu ginnaaw. du loolu sax. waaw defe naa ni wax ji mën naa bañ a bëri. dama doon xool fu ngeen bokk. xam naa fu ngeen bokk nag. waaw wax ji dañuy daal di tënk rek. jërëjëf jërëjëf. bi moom am naa si yaakaar ndax gone gi dafa baax. xale la waaye mi ngi dox mbokk nit ku baax la. ku bëgg yaayam. gis nga bii gi xaalis bi mu la jox dégg naa patron moo ko jox nee na dalaa jënd nga jaay ko sa doom sa dara ngi yàqu.